léegi jeexal nañ unit 1 unit 1 jeexal nañ ko maam jeexal nañ bind bi nga xam mooy bu njëkk bi leçon bu njëkk bi jeex na léegi nag mu des exercice yi exercice mooy exercice yaa ngi dégg su ko defee na léegi boo xoolee fii ci kaw maanaam foofu noonu lu la bindal foofu mooy daf laa wax ne la write the short form short form she's short form ban mu ne la she's boobu noonu ak bii nii we aren't ay short form la waaw yooyu ay short form la maanaam she's boobu noonu ak we aren't boobu noonu yooyu ay short form la yoo xamante ni jàngoon nañ ko ci leçon bi nga xam moo jàlloon moo tax leçon yi faaw boo bëggee xam maanaam mm, bi leçon bu bu ñëw rek soo ko ratee rek fi mu nii pour nga comprendre ba ca top maam day xaw a jafe ndax mbir yi dafa dugglante moo tax ok su ko defee nag léegi she's bi nii ak we aren't yooyu jàngoon nañ yooyu ay short form la ndax boo nee she is man ngaa wax loolu ba neexee nga ne she's we aren't mooy short form we ak we aront boobu danga ko abrégé moo tax nga ne we aren't ok léegi nag su ko defee na léegi yooyu na la bëgg na léegi bu ci nekk ci yim lay bëgg a jox ni nga def ko noonu léegi bi ci njëkk daf lay daf lay daf la koy defal moom jox la exemple defal la ko masalan tey bii nga xamante ni boobu noonu boobu mooy she is she is mooy léegi da ngay nekkal mbir ndax loolu waxoon naa mooy verbe verb maanaam verb to verb to be mooy nekkal dara kaana maanaam nekkal dara verbe être yaa ngi mooy moom nekk na nangam yaa ngi nag moom baat boobu la bëgg she is boobu la bëgg na léegi nga ko ci beneen forme nag forme boo xamante ni dafay abrégé mbir mi au lieu ngay bind she is nga bindee ko nii xoolal bind mu xonq bi gis nga bindal la ko noonu she's she's yaa ngi dégg she's ok mooy noonu mooy bind mi nii boobu noonu mooy she's yaa ngi kon boobu moom jox na la exemple ci ni nga xam noonu koy defee bu ko defee nag léegi mu joxaat la yeneen bi ci topp mooy bii nii boobu mooy they are they are they are boobu maanaam long maanaam long form la maanaam du short form léegi nag dafa bëgg ne léegi indi ko ci anam ngoo xamante ni danga koy indi comme exemple bi la njëkkoon a jox ci kaw ngay mbir mi abrégé ko xam nga am na nañ koy defee loolu jàngoon ko ndax am na noo ma koy expliquer rek day mel ni wax naa la <laughs> maanaam tontu bi fi mu toll ok ma tax léegi ci bind bii nii maanaam li lay jox rek expliqué la exercice yaay xool li fa war a nekk nga jéem ko lijjanti def ko beneen bind bi ci topp na léegi su ko defee nag ñëw na indi tontu ci def ko bu ci nekk ñu xool ñu dugal la fay nekk su ko defee yow nga comparé ko ak li nga xamante ni moom nga def defoon ba xam noonu la bu dee noon nag baax na nga xam ne comprendre nga ko bu dul noonu nga jéem ko corriger. xam ne ñi la war a doone léegi kon maanaam léegi wax na la na maanaam they are boobu noonu dafa bëgg na léegi nga bindal ko ci short form léegi espace vide bii fii la bëgg léegi fii nga koy def bépp espace vide rek dama koy dama koy rëdd bu la nga mën koo comprendre kon foofu dafa bëgg nga indi maanaam they are nga indi ko ci anamok beneen anam loolu jàngoon nañ ko léegi nag bi ci topp mooy bii nii it is not mu bëgg na léegi bindal ko ko ci forme bo xam danga koy adressé forme adressé ko muy short form forme boobu tëggal ko ci beneen anam loolu la bëgg léegi nag nga def ko fan def ko fii noonu indi su ko defee na léegi bi ci topp mooy that is that is mooy lee la lenee xam nga jàngoon nañ ko jaaraat ci bu ci nekk nga bëgg a leeral nami yi lam doon yooyu xam nga loolu day tardé ndax bu ci jaaroon ko jàngoon nañ ko ci leçon yi jàll bu defee ne ne that is boobu noonu dafa bëgg nga tëggal ko ci beneen anam beneen forme forme boo xam ne koy abrégé léegi nag mu ne la def ko fii nii yaa boo ko defee nag léegi mu ñëwaat ci ban mu ne la bii nii nga xam moo ci topp mooy I am not I am not mu ne la léegi tëggal ma loolu noonu ci beneen forme am na neen nuñ ko mën a waxee lu bokkut ak I am not loolu jàngoon nañ ko léegi da ngay dell nga bu fekkee comprendre ko su ko nga mën koo def ci barab bi nga xamante ni mooy espace boobu noonu su ko defee léegi bi ci topp mooy maanaam you are not you maanaam léegi dafa bëgg léegi xam yooyu ay long form la léegi dafa bëgg léegi indi ko ci beneen anam boo xamante ni léegi da koy teggiwaat ci beneen anam nag boo xamante ni même noonu lay doon waaye da nga koy teggiwaat ci beneen anam bindee ko ne boo xamante ni ay da koy abrégé nga def ko nag foofu ci fii nii maanaam ci euh, foofu kon léegi ñu jàll ci beneen mu na la write mu write mooy bind maanaam bindal write mooy bind bindal nangam mu ne looy bind mu ne la léegi maanaam mu ngi nii masalan mu maanaam maanaam mu ne la léegi write bindal nga ne ko léegi lu muy bindal mu ne la bindal maanaam am boobu noonu ak is maanaam am boobu noonu ak is bi nii ak are boobu noonu yooyu jàngoon nañ yoyu yooyu mooy conjugation maanaam bu ñu bekkee dañoo bëgg ah, verb to soo fekkee da ngay wax ak yow sa bopp am na noo koy waxee boo koy conjugué ak booy wax ki nga xam góor la eh, te nekk fi jàkkaarloo moom ak booy xam mbooloo ak yëpp ne wóote na te yooyu jàngoon nañ ko yooyu nag la wax ne la yii mën a jox ne ñett yooyu muy am muy maanaam bii eh, nii muy boobu am boobu eh, ak is boobu noonu ak ar boobu noonu ñett yooyu dafa bëgg xam ne nga dugal ko bind ko ci phrase yi nga xam ne lay ko jox phrase bu ci nekk rek am na benn ci yooyu bu ci war a dugg yow léegi yaay xool ban moo ci war a dugg ci fi espace vide bi nga dugal ko foofu léegi nañu xool bu ci njëkk bi ci njëkk mooy ban boobu noonu mu ne the weather the weather is nice today the weather is nice today it is nice today mooy climat bi tey dafa neex ah climat tey dafa neex the weather is nice today climat bi tey dafa neex mooy loolu the weather mooy climat bi maa the weather ah, is gis nga is moo ngi nii gis nga gis nga fi mu la ko dugalal maanaam gis nga the weather ease moo ci war a nekk foofu nice today yaa ngi dégg léegi nag bu ko defee nag léegi yi ci des nii yow yaa koy mottali fii nii euh, maanaam foofu gis nga li mu wax foofu dane aay aay mooy ana aay mooy aay léegi daal moo fi war a dugg fii am na lu fi war a dugg aay hmm, am na lu ci war a dugg not rich maanaam riisut nekkul ko am xaalis not rich mooy koo xamante ni amoo xaalis <laughs> maanaam riisoo daal ok kon léegi fu bu la foofu am na lu fa a nekk yaay xool la fa war a nekk loom doon nga dugal ko fa ok bi ci topp mooy maanaam bi ci topp mooy this bag mhm, heavy this bag mooy saag bii nii a ah, la war a dugg fii am na lu war a dugg fii mu ne la mooy toppee this bag mhm. heavy mooy dafa diis yaa xool dafa war nekk rek nga daar di ko fiy dugal fi mu toll nii ah. bi ci toppaat mooy these bags these bags aha fii heavy mooy ci topp mooy dafa diis xoolal foofu am na loo fi settantal gis nga ñaari la jox nii kaw ñaari phrase yooyu dina bi dane this bag mhm, heavy fi mu indaat la même phrase boobu waaye gis nga fan la moo fi yokk mooy bi ci suuf dafa am s moy wane na léegi foofu mbooloo la kon léegi ñaari wute nañ révétation ci boo koy def kon dañ leen di bàyyi ngeen defal ko seen bopp boo ko defee léegi suñ ñëwee ci beneen kii doo koy doo koy doo indi li nga xamante ni moom mooy maanaam tont yi bu ko defee nag léegi bi ci topp moo ngi nii boobu mooy topp ba ci topp mooy look there maanaam léegi fii nii muy espace vide boobu noonu maanaam espace espace vide bii nii am na lu fa war a dugg look mooy xoolal xoolal look there xoolal feenee aha am na loolu dugg foofu Helen Helen autour la mu ne look there Helen look am na lu tëb foofu noonu lañ tëb foofu noonu lañ bëgg yow nga dugal ko fi ngir léegi phrase bi mën a am nekk jumla mu fii la nekk baat maanaam phrase boo xamante ni day mën a tegtali dara mën a am sens mën doon dara waaye fii ne lii muy wax nii amul sens look there daa ne nga xelal am na lu fi manqué lu fi manqué léegi lañ bëgg mi hmm. ci topp mooy fii nii maanaam mooy my brother and I my brother sama rakk bu góor and I and I mooy man and I I mooy ana my brother and I mhm, léegi fii nii am na lu fi manqué li fi manqué na lañ soxla ngeen indi ko fi ndax léegi jumla bi mat my brother and I aha good tennis players ay suyeekatu tennis lañ ñu mën a suyee tennis lañ léegi dañoo bëgg nga indi di manqué ci diggante boobu ngir phrase bi mat mën a am sens ok bu ko defee nag léegi bi ci toppaat mooy mooy boobu noonu Émilie Émilie aw tur la mu ngi mën nga ne Cheikh wala nga ne nangam nangam yaa ngi dégg bu ko defee nga Cheikh aha wala nga ne Émilie aha diggante bi am na lu fi maa ngi nga ne mu ne la Émilie daal ci teg lan at home ca kër ga Émilie ca kër ga <laughs> kam mutut nii waaw léegi am na lu manqué foofu li manqué ci diggante bii nag ngir mu mën doon jumla mu maanaam mën a doon phrase bu am sens foofu na loolu lañ bëgg yow nga indi ko fi mu moo tax mu ne Emily aha su ko defee ne at home Emily at home kër ga rek Emily ànd kër ga rek xam nga lool matut kon yow yaay ji moom mottali lan moo manqué foofu noonu bi ci topp mooy maanaam. boobu noonu her children her children aha nuru maa ngi fii de her children Emily xamu jigéen la moo tax mu ne her dafay dellu ci Emily moo tax xam nga dafay bañ a répété waat maanaam tur wi moo tax léegi dafay jëfandikoo rek her maanaam boobu noonu su ko defee nag mu ne children ay doomam mooy doomam yi aha waaw am na lu manqué ci espace bi de bi mat ngir phrase bi mën a mën a mat ba rek her children école ba her children xam nga loolu mu des bii maanaam mu des bo bii bokk na moom moo jiitu mu ay man ne a taxi driver dane man rek ne a taxi driver a taxi driver mooy dawalkatu taxi daa wax ne man a taxi driver man ak man dawalkat bi man dawalkatu <laughs> man daa di wax ne ak benn dawalkatu taxi daa ne man a ay mooy man ñun ñuy xaar lan la fiy teg mu ne maanaam a taxi driver dawalkatu taxi rek kon léegi xam nañ ne kon léegi jumla yu matul te léegi am na lu manqué fii nii léegi loolu lañ bëgg yow nga xool ci baadim la njëkkoon a jox nii te mooy am mooy muy muy muy bii nii muy boobu noonu ak bi ak bii ban moo ci war a dugg foofu yooyu lañ bëgg nga xool bi ci war a dugg nga dugal fu mot kon léegi bi mu nga ne ah ngay diglu lu mu wax mu ne maanaam dawalkatu taxi rek xam loolu matut kon léegi yaa koy ji a mottali léegi nag bi ci mujj bi ci des mooy boobu noonu mu ne my sister sama rakk bu jigéen bi mm-hmm, a nurse a nurse mooy infirmière infirmière mooy euh, kooku noonu ki docteur bu jigéen bi xam nga wax my sister ñuy diglu lan fi rek lan lay teg fii mu daal di ñëw tëb ko moom daat di ne a mooy benn mooy infirmière kon léegi am na lu manqué foofu loolu lañ bëgg nga dugal ko kon léegi boo xoolee tey exercice tey bi mooy mooy lii exercice bi mooy loolu loolu nag léegi ngay jéem xool baat bu ci war a nekk war a nekk dugal ko fa su ko defee nag léegi leçon bii di ñëw nag ñu daal di ñëw na indi li nga xam mooy tontu bu ci nekk ci yii la fa a dugg danañ ko fa dugal su ko defee yow nga ko yi nga defoon bu fekkee noonu la baax bu fekkee nekku noonu nga jéem ko corrigé ok kon dañuy yem foofu ba beneen bind waaleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu